yi nga xamante ni am na ci danañu ko xaymal ñàkk yi nga xam ne Sénégal ñàkk na ko ci ci lu jëm ci wàllum kooma maanaam perte économique yi loole tamit bokk na ci li njiitu réew mi di président Macky Sall sàkku ñu daal ko ci andil bilan bu leer nañ journal bi de la témoin xëy duñu xibaar naan ñu bari ñoo ngi doon xaar Macky Sall mu yëkkati ay kàddoom ci manifestation yi nga xam ne moo amoon ci réew mi waaye nag moom Macky Sall waxagut na ginnaaw bi la yëkkati ay kàddo journal bi nee na surprise bi mooy ginnaaw dialogue national bi Macky Sall ci conclusion dialogue national ñàkk seen bakkane ci manifestation yi nga xam ne moom la ñu génn yéenekaay gi di Walf Fadjri ñu xëy fekk fa maître Abdoulaye Tine moom nag daat nay ñaawlu bu baax a baax tojaanga yi nga xam ne nguurug Sénégal def na ko waaye tamit ñaawlu na bu baax a baax yàccaaral gi nga xam ne nguurug senegal def na ko journal bi de Le Quotidien nee na njiitu réew mi di président Macky Sall ku jàpp ne ma ngi wàcce garde bi maanaam yaa ngi nax sa bopp Macky Sall ba léegi maanaam wàccewul garde bi yéenekaay gi di Réew mi Quotidien ñu xëy fekk fa Aminata Touré mi fi nekkoon ay jamono premier ministre bu Sénégal nee na lu jëm ci wàllum dàq élection yi ngi koy laam amee waaye nag loolee ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg te li am ba des mooy élection présidentielle 2024 dinañu ko amal ci nii wala ci na ba ñu ñu ci nobbu ñu saañum ngeer te Macky Sall moom ci boppam du bokk ci yooyu la élection yéen kay gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa maître Omar Youma moom nag nee na lu jëm ci wàllum dàq élection yi loolee contre ko contre ko maanaam du ko bañ yéen kay gi di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa maître Ciré Clédor Ly muy avocat boo xam ne mooy layel Ousmane Sonko daan bi ñu dénk kaaraange réew mi bi nga xam ne jamono ji moom la ñu def Ousmane Sonko moom maître Ciré Clédor Ly nee na nag usman Sonko ay droit ma jamono ji dañu koy violé nee na dem na lu toll ci juróom-ñeenti yoon yoo xam ne dem na ko kër Ousmane Sonko ngir bëgg ko gis ñu daal di ko koy tere moom maître nee na avocat la am na sañ-sañ dem seeti ab client ma waaye nag dañ ko ko tere yéene kaay gii di l'info ñu xëy fekk fa aji bu sumaare niki démb daan na yëkkati ay kàddu nee na Macky Sall moytul ñi nga xam ne ñoo lay dugal waaye tamit bul déglu ñi nga xam ne nguur gu nekk ñam nañu sa nee na ko Macky Sall takkal sa fit wax ne élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmalay journal bi de Le Quotidien yor yora nee na dialogue national bi nga xam ne moom la ŋawta ŋawtee ci réew mi dialogue boobee du mën a nekk li tax dialogue bi du mën a nekk mooy paaka mënoo koo jël teg ko ci boolig nit ba pare na ko kaa ñu dialogue ndax Ousmane Sonko mi ngi nii lu toll ci fukk ak ñaar ci fan yoo xam ne dañu koo daal di bloqué yéen kaay gi tamit nee na lu ëpp juróomi téeméer ci ay ndaw ñoo xam ne dugal nañ leen ci kasu bi bëri na xam ne ñoom tim ñoo ngi ci kasu bi am lu toll ci fanweer xam def nañ ko si boo si yokkee lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature bi nga xam ne moom la ñuy laam-laamee ci réew mi yéenekaay gi di Le Quotidien xëy di ñuy xibaar naa ñu ñi nga xam ne doon manifester sa diwaanu Kaolack ni ki démb doon nañu leen atte waaye am na lu toll juróom benn fukk yoo xam ne bàyyi nañu leen ñu ñibbi yéenekaay gi di L'Observateur ñu xëy fekk fa Lat Diop mi nga xam ne mooy directeur général bu LONASE nee na Ousmane Sonko dañu ko war a jàpp ndax nee na Ousmane Sonko ab délinquant la Ousmane Sonko moo waral ñi faatu ci réew mi faatu ci réew mi kàddu yu Lat Diop ma ngi ci journal bi di L'Observateur kaay gi di enquête nee na en tout cas li am ba des sàlla violence fitna bi nga xam ne moo am ci ëtt politique bi ak mbañeel gi jamono ji doy na waar lool yéen kaay gi de la turbine ñu xëy fekk fa maître Abdoulaye Tine nee na ngir jàmmi Sénégal ngir Sénégal am jàmm ngir Sénégal dal li muy sàkku jamono ji mooy la départ de Macky maanaam Macky Sall joxe réew mi ci ni mu gën a gaawee yéen kaay gi di source waa xëy yóbbu ñu diwaanu si kër góor gi nee na Ousmane Sonko ak blocus bi nga xam ne moom la ñu tegoon ca këram ba léegi mbir maa nga fa kaay gi nee na am na ci nag ay yoon yoo xam ne mën nañu faa jaar tranquillement maanaam yoon wi nga xam ne moo jugee ci planète Keba daal di def directement wuti Auchan yoon woowee principal la ku nekk mën na faa jaara waaye nag yoon wi nga xam ne moo dugg jaar bundu kër Ousmane Sonko yoon woowee kenn mënu faa dugg dañu koy tere ba léegi takk der ya ñoo nga fa yéen kay gi di libération xëy duñu xibaar ñu lu jëm ci xam ne moom la ñuy traqué ñi ànd ak Ousmane maa ngi mel ni tulleeg màlle yéen kay gi ci Pastef la bokk juriste la Dakar naaf la doon liggéeyee ginnaaw bi ñu ko tegee loxo démb ñu ko mandat dépôt yéenekaay gi nee na Olivier moom tim inspecteur du trésor la teg nañu ko loxo journal bi nee na retour de parquet fukk ak juróomi jigéen yu Bois Sacré am nañu retour de parquet Pape Abdoulaye Touré retour de parquet Cheikh Bara Ndiaye retour de parquet Ndeye Ndaak retour de parquet Ben Talib Sow retour de parquet journal bi nee na retour de yi ma ngi mel ni tulleeg màlle loolee nag moo tax administration pénitentiaire jamono ji car transport public yi ci lay jël di ci dugal nit ñi yéenekaay ki nga xam ne moo jiite jiite woon renseignement wàllum police ci ndakaaru limogé nañ ko maanaam dàq nañu ko yéenekaay gi di Libération nee na Jifeer ak sa gis nañu fa ñeenti néew ci ndox mi yéenekaay gi di Rewmi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu avocat Ndeye Khady Ndiaye yi def nañu appel journal bii Dakar Times ñu xëy fekk fa Jean Baptiste mi nga xam ne mooy ambassadeur u Sénégal Russie nee na Russie partenaire bu intéressant la partenaire bu baax la ngir Afrique yéenekaay gi de la Point moom xëy wax ci élection présidentielle 2024 nee tegaat ko ba gën mooy Souleymane Ndiaye yéen kaay gi di Rewmi Quotidien nee na élection yooyu soo muy tuwulee dana gëllu góose ca bitim réew ak consulat yi nga xam ne moom lañ fa tëj Ndiaga Sylla di expert ci lu jëm ci wàllum électorat daan wax ne consulat yi nga xam ne tëj nañu ko ca bitim réew mën naa andi ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum élection yi ndax consulat bi ñoom ñooy lijjanti lépp loo xam ne jëm na ci wàllum contentieux jafe-jafe yi am ci révision liste nga xam ne ñoo nekk ci diaspora ki nga xam ne mooy Aïssata Tall ci tëj gi nga xam ne tëj na ko consulat yi waaye tamit ñi nga xam ne ñu waa Pastef ca bitim réew ñoom ti mere nañu ko bu baax a baax yéen kaay gi di direct news xëy dañu xibaar naan yàq yi nga xam ne moom la ñu doon yàq université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ba léegi bëri na ci acteur politique ci ku jegi ñoo xam ne kenn déggu leen ci noppi gi ñu ci noppi dafay niroo nag ne dañ ànd ndax lu jëm ci wàllum campus pédagogique bi dañu ko taal archive yi ñu di koy taal fac lettre ak fac ko yàqee loole mooy taal nañu mémoire ya yéen kaay gi